من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi lazi tatimu salihati wasalaatu wasalaam ala seydina muhammad wa alihi wa sahbi wa sallam ginnaaw ba sante borom subhanahu wa taala du bi muy seydina muhammad alayhi salatu wasalaam saa su ñu ko defee ñu ngi fii ñun waa El burdu yi nga xamante ne mooy am fii ci Dakar tey ñëw dernier burdu populaire bi nga xamante ne mooy am fii ci Samsam 3 euh, ñu jox ko imam Malick Diop waa jamaa Seydi Hadji Malick jox ko imam Malick Diop fii ci Samsam 2 ñu fas yéene leen koo jox rek incha allahu rabbi ndax euh, taala anu ba muy indi burdu bi pour ñu gàttandoo ko juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba léegi ci lañ nekk bu ñu leen bi nga xam mooy dernier burdu populaire bi nga xamante ni moo am fii sam-sam te incha allah rabbi lépp lu ñu leen joxaat tiwaawan lay doon incha allah rabbi ci gàmmu tiwaawan incha allah rabbi dañuy bàyyi balla am leen ci burdu bi su ko defee ñu jël quelque interview ñu tàggoo tàggoo ñu tàggoo incha allah Gracias. <laughs> ki ñu ngi fii si jamia haji Hadji Malick radiallahu taala anu burdu bi nga xamante mom la suma waa jamia Seydi Hadji Malick organisé fi ci sam sam do jox ko imam Malick Diop ci lañ nekk ni ñu taxaw ak présidente bi nga xamante mo nek présidente jamia Seydi haji Malick ñu fas yéene ànd ak am ak mom ay laaj ak tontu inshallah rabbi salam alaykum yaay boy alaykum salam salaam ñu nañ euh daayira bi num tuddu khairi wal minati xayri wal minati waaw bi Cheikh mohammed Mansour borom daara ñom ñoom ñoo organisé burdu bi. waa nah, ñoo organisé groupe tey. groupe bi kon ngeen ko jox kan ngeen ko jox tey. ah groupe bi kan ngeen ko jox. Amina Niang Mansour. Amina Niang Mansour lañ ko jox. présidente nah. daayira. présidente daayira macha allah. ñaata daerah nah. la. fukki daerah la ak Fuki ñaar fukki Wae ak juróom-ñaar. waaye dañoo am tey yeneen i burdu am nañu ñeneen ñetti burdu ci gannaaw. am nañu ñetti depuis ngeen bi. ah burdu daerah bi yàgg na. dem am fanweeri at. dem am fanweeri at. waaye ren lan ren ngeen yéen a ngi waajal gàmmu Tiwaawan ji. incha allah nan ngay conseillé xale yu jigéen ñi xam ñu ngi waaj dem xa gàmmu Tiwaawan. ñu góorgóorlu rek ñu góorgóorlu fonk daayira yi ndax amuñu lu ëpp daayira yi amuñu lu ëpp Seydil Aji Malik ak Cheikh Mouhamadou Bousso waaw. ñu ngi lay nun rek sunu lépp Tiwaawan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may bég ci yéen nag yéen bu baax a baax a baax te affaire bii. bett gi ngeen ma bet rek mooy li ma métti ma tam waaye bi ngeen ma bettul woon ngeen ñëwee dangeen ngeen xam ne yaay Amina ngeen seet si waaw yal nañ dund ba defaat ko incha allah yal nañ dund defaat ko maa ngi leen sant maa ngi sant daayira yi maa ngi sant xale yi di bëgg nag ñëpp rek dugg ci tariixa bi tariixa seex tariixa seex tariixa ko kenn fay nañ ko jàpp bu a baax a bett bi daal la ma métti si allah mi ngi noonu gis ngeen ne présidente bi nga xamante ni moo nekk présidente Jamia Seydi Hadji Malick radiyallahu taala dëgg la dëgg la kontaan nañ trop kii sama doom la kii sama Hallelujah. سيد الحاج مالك ترنين إذا لم يكن نحو الحرام عدول لقد هل تقلبت أسبوعي بأمتار سيفك العتيد عدو الحق والهدى محبت أمير الوحي فكيف يطيب الأمر إن فعلم الذي الله الحب الذي قطب عظيم رؤوف رحيم شافع وشومه وعما الذي لا يوجد مبتسمه الحداد الجسم وطيبه فأما الذي بر العظيم مطهر Aïcha comme nañ leen ko waxee woon rek ginnaaw ba ñu nekkee ci nga xamante ni mooy burdu suñu maam Seydi Hadji Malick Sy Allahu taala anhu jamaa ko indi ko fii ci Samsam 2 ñu taxaw kenn nga xamante ni moo nekk président organisateur fii ci jamaa Seydi Hadji Malick dañoo fas yéene laaj laaj ko rek euh, ay tontu ay laaj moom mu tontu ñu incha allahu rabbi euh, sang bi ziar nañ la. ñi lay fay ziar bu baax a baax. depuis kañ ngeen organisé burdu bi. burdu bi bii mooy quatrième fois ñu koy organisé. def nañ ko ñeenti at ci ren ñu ngi koy def waaw dañ ko daan def nag lu ëpp ñeenti yoon lañ ko daan def ci semaine bi mais ren dañu dañ koy def ñaar comme xat-xat yi ni mu baree loolu tax ñu def ko ñaar tey premier bi ñu def ko kër Pa Mansour Wade ñaar bi ñu def ko si fii kër yaa Amina ci Sam-Sam waaw. lii jamia bi ñaata daayira la. jamia bi mi ngi toll ci fukki daayira ak ñett. fukki daayira ak ñett waaw. Euh, depuis quand ñu organiser jamia bi. jamia bi war naa am fi mu toll nii. juróom ñetti at suma juumul ci ndigalu kan la ci ndigalu cheikh mouhamadul mansour si mom moko wonne mom ne waxon soxna asiyatu si na nga dem ci amina ñang nga nako daayira yi nekk caaroy ba fas mbaaw nañ leen boole amina ñang dox ci ak maire yi mu ko bokal ba bo batay nak ñi ngi ci e, muy fukki daayira ak ñet mu ëmb diggante fas mbaaw ba sam-sam waaw ñi am ay programme ak yoy non programme nag mës nañ cee am benn boo xam ne bu ñuy tuddee bu mag muy gàmm dinañ def ay ziar weer wu dee tamit dinañ am ay daayira yoo xamante ni fukki daayira ak ñett yëpp ñoo ciy daje weer wu nekk dinañ benn daayira aaye ko. question ba organisation méttiwul. organisation bi du metti ndax miin nañ ko mhm. te lépp liggéeyal Seydi Hadji la moo tax du metti incha allah du metti asalaamaaleykum wa rahmatullah